kon bu leen ci indi coow da ngeen di ànd ak dal ñu dox ko ñu nekk di ko dox je n'étais pas le seul am na ñu bari ñu ci doon dox. alors bi ñu demee ba décembre 2017 président de la république Macky Sall. ñëwoon Thiès di def lancement wu les travaux de KMS trois muy Kër Momar Sarr 3 muy affaire ndox. bi mu ñëwee def lancement bi population yi nekkoon foofu def manifestation yore seeni pancarte di ñaan ñu régulariser la. Mm-hmm. président de la république jël engagement devant tout le monde ne dina leen régulariser alors euh, ca la santé gouverneur mm. ne ko na jóg en rapport avec les services techniques et les responsables mm. des collectivités territoriales ñu liggéey ci loolu ñu commencé caa liggéey ci diggante bi nag mu am ñoo xam ne dañoo dem jaay yeneen parcelle ay nit ne leen pour mu mel ne da ngeen a bokk ci ñi ñu war a régulariser. ñoo xam ne newuñu foofu. waaw mais ñu fu ñu bokk. waaw ak ku leen yebal non dama ni ay nit la yu ko doon def. ay particulier wala ay ñooñu plus tard jàpp nañ leen ay plus ay particulier la. Mhm. mais dama ni am na ñu fa jaay ay terrain te bokkuñu woon ci ñi président digoon ne dina leen régulariser. bi loolu amee ba mu xaw a ëpp moo waral en janvier deux mille vingt et un gendarme ñëw. ay kër parce que boobu des descos gis nañ ni effectivement ñi fi nekk amuñ droit ne fi quand mais ba ñu ñëwee di toj xam nga toj moom forcément ça crée de l'émotion man boo muy am Touba la ma fekk fa jóge jubali Ndakaaru ngir dox ci wax ci ngir toj bi arrêté bi ma wàññi ko ma am les assurances qu'il fallait ma war a xëyee Dakar balaa may ñëw ci yoon bi daanaka dëkk ba yëpp gaa yi koy taal. mu mm-hmm. am manifestation yu metti man j'étais seul ma jugal ci ñoom comme jox nañ ma cër ma jugal ci ñoom ñëw gaare ñëw taxaw ak ñoom demandé leen na ñëpp taxaw ñu taxaw euh, fekk njëkk naa ñaan ñi jiite takk der yi neen bu ñu leen balancé grenade nañu nañu may ma wax ak ñoom effectivement ma taxaw wax ak ñoom leneen lépp dal mm-hmm. déjà toj bi day arrêté puisque am naa assurance yi ci war ci kilifa yi nga xam ne. ñenn ñoo la assurel. non mooy mooy état je de l' état tudd ay tur. Hmm. donc li ci am solo mooy am naa assurance bu ma mënee taxaw ci seen kanam ne leen kenn dootul toj te kenn tojatul c' est parce que fa ma war a taxaw ak fa ma war a jaar jaar naa fa. Hmm. ma ñëw ne leen toj bi fii lay yem. puisque am li am am na ba pare li am importance mooy comment régler le problème man leen nag du ci mbedd mi lañ koy régler. Hmm. danaa leen woo fi ma leen war a woo ñu waxtaane li ñu war a waxtaane ñu wëlbatiku toog ak ñi nga xam ne ñoom ñooy représenter l'État fii ci biir Thiès muy gouverneur préfet ak sous-préfet yi mm-hmm. loolu la ñu def alors ña nga xam ne effectivement dañu leen a dugaloon ci euh, euh, groupe bi ñu war a régulariser te bokkuñu ca woon ñooñu ñu ca bëri joxe seen acte de vente mm-hmm. ba joxe acte de vente nit ñi xam ñan ñoo ko jaayam ñooñu prison lañu ñu mujj alors bi ñu nekkee prison bañ leen jàppee avant ay procédé am ak yooyu yëpp. Mm-hmm. Euh, la ñu mënoon en tant que mairie sur le plan euh, humanitaire taxawu seeni famille on l'a fait vraiment alors ñu ñu continuer liggéey ci dossier bi ba mu leer xam nga kon dossier bu ñu xam la bañ ci liggéeyee ba mu pare. Euh, dafa am ñu bëri ñu war a intervenir ci préparation projet décret bi. Mm-hmm. waa urbanisme puisqu'on parlait de déclassement. Euh, waa waa urbanisme. Mm-hmm. Euh, environnement urbanisme ak waa secrétariat général du gouvernement. Mm-hmm. mais affaire bi yeex. c'est moo ko yéexaloon. waaw xam nga affaire bi yeex. war ñëw ñëwul non c'est plus tard que je comprendre. ak yu mujj xew lu tax mu yeex ndax. comme man ni ma doon doxalee si mbiru suuf bi bëgg mu leer ne benn du ma si am. mètre carré sama ndey du ko ci am sama soxna du ko ci am sama doom du ko ci am sama rakk du ko ci am. mu leer ndax soxna Ndeye Fatou buñ la séddalee loo yow loolu mooy sa cër boo waree séddalee loo xam ne du mat mais waru séddu te yow du sa yëf. bu doon sa yëf la waaw. mais du sa yëf dañ la ko dénk ne la séddaleen ñu Thiès euh, dafa am euh, quarante quatre mille ménage ci li statistique mujj génne quarante quatre mille ménage alors quarante quatre mille ménages yooyu ba ma waxee ci audience publique na na ku bëgg na bind je pu euh, dajale seize mille demandes mais bu ñu waree joxee ci ñooñu la war a jukki d' abord. alors nous avons élaboré à Thiès le plan de développement de la ville de façon participative et inclusive dénk ko Chérif Diagne euh, l' excellent Chérif Diagne mi nga xam moo doon directeur de l' agence régionale de développement. Mhm. nouvelle ville bi ngay dégg ci mbiru mbuurkat bi maanaam nouvelle ville boobu. ca loolu la cosaanoo. Mhm. maanaam. Euh, benn équipe. waaw bu Chérif Diagne directeur de l' agence régionale de développement jiite. Mm-hmm. service yu état bi yëpp bokk ci. ñu impliqué ci les communes de Thiès ñoo liggéey ñu def ay audience publique ñu dem ba am soixante quinze projets. Mm-hmm. prioritaires yoo xam ne man tànnuma leen nit ñee leen tànn puisque dafa am équipe bu jóg dem ci ñoom. comme tey bu ñu ñëwee ñu ne soxna Ndeye Fatou. léegi waxal yow ci projet yii yan juróoma la ci gënal. bi nga njëkk a tudd ñu jox ko benn coefficient 10 bi ci topp 8 bi ci topp 6 bi ci topp 4 bi ci topp 2. dajale loolu lépp nag dugal ci logiciel 75 projets yooyu fa la génne. pour un montant de 78 milliards 725 millions suñu defee liggéey bi. ñu adossé woon ko ci PSE mais adossé ko aussi ci les objectifs développement durable. suñu soxlaa financement ci biir Sénégal duñ ñu ko mën a bañal puisque plan bi nga xamante ni mooy doxal réew mi mm-hmm. waroowul ak loolu mais aussi suñu ko soxlaa ci àdduna bi aussi ñu war ko mën a am puisque les objectifs de développement durable jël nañ leen en compte ba ñuy élaborer waaw mais yow tong-tong bi léegi waaw voilà léegi ma wax ni lañ koy boole wala boolewul defaree loolu mm-hmm. liggéey ko mm-hmm. le président Macky yebaloon dem si yàlla si euh, le premier ministre Boun Abdallah Dionne yàlla na suñu borom yokk yërmande ci moom mm-hmm. moom moo ko représenté woon ñëw donc mu doon lu officiel lu ko jiitu ndem si yàlla si Djibo Leyti Ka un an avant bi ñu nekkee ci liggéey bi moo ñëwoon en tant que ku jiite. commission nationale du dialogue de territoires moom itam yàlla na ko yàlla yëpp. mu ñëw fekkee liggéey bi muy liggéey bu mucc ayib ñu waroon kon suñu waree suñu demee ba def déclassement bi. mais en priorité xam nañu lan lañ fa war def. waaw ah puisque plan de développement bi mu ngi nii. Mm-hmm. pour li concerner ville bi. li concerner état bi ñëpp xam nañ ne waa agence nationale d' du territoire ANAT. ñoom ci seen bopp am na liggéey bu ñu def PNADT yaa ngi dégg nga xam ne dañoo def benn ñoom seen plan national boo xam ne mooy permettre zone yi nga xam ne kenn waru faa dëkk ñu xam ne fii kenn waru faa dëkk zone yi nga xam ne dañ leen war a réserver pour ëllëg ay projets yu mag yu état bi war a am wala collectivité yi war a am ñu réserver leen pour loolu parce que souvent nit bëgg a liggéey te du am fu mu ko defee mm-hmm. loolu la xalaat kon kay suñu demee ba déclassement bi war a am en priorité nit ñi dañu war a toog